Navalikum Soubegay, j'espère que vous allez bien. Kawtef ci ministère de la santé 1080 agents junni ak juróom-ñett fukki doomu aadama yoo xam ne fukki at état bu Sénégal di leen fay ci alali réew mi ndakate daawuñ liggéey détournement yi waxee su ko wàllu yoon 81 personnes yoo ñu jàppoon ca ndar defeere nañ leen Mame Boye Diao pelente na Adama Faye groupe président Macky Sall ba woon citation direct ci kanamu yoon. ñi ñu jàppoon ci xale bu jigéen ba doon suus ca boîte de nuit ba Thiès di juróom-ñetti nit wàcc nañ leen ñu dellu ci seeni njaboot waaw euh, nees ko mën a waxatee euh, ki ñu dénk wàllu communication Aliou Sall nee na fii ak le 30 novembre bii ñu ne dinañ génne médias yi nga xam ne ñoom ñoo am droit exercer seenub liggéey fii ci Sénégal am na ñoo xam ne nekkuñu en règle ay chaîne YouTube rek lañu yor wala ndeysaan intercoalition juddu. maanaam Amadou Ba ñamu àndal président Macky Sall ak ñamu àndal ñoom Karim Wade ak ñañu àndal ñoom Barthélémy jaas ak ñañu àndal ñoom ñoo teew ci juróom-ñeenti département ngir jaamaarloog Pastef booba jamono Ousmane Sonko diggante Géejawaay ak Kër Massar def na fa dóom wax na ci wàllu xeebel geeg xeet wi boddi xeet yi wax na fa it ci wàllu média bi wax na fa it ci ay diggee jëmale ko ci marchand ambulant yi ci fan yi ñu ñëw Boubacar Sey Horizon Sans Frontières di ñaan roi Maroc ngir mu sénégalais yi nga xamné dañ leen a ci kasso yu Maroc ya ñi ñu passeur la ñu ay la won rek lu am ba Sénégal na def ay recherche à analyser dal né fi ak 2050, dinañ ci millions d'habitants waaw la suñu gaynde yi wara ak Burkina ca Mali bu les ci am ndam ok Euh, almaami ñoro euh, du rip moom Moustapha Ba moom jébal nañ ko moom yàlla na ko yàlla yërëm kenn dal ak jàmm sama